dafa bëri ñoo xam ne xamuñu ne cumbux bi Aïda Samba ci woy ki ko tourné noonu femme bi ko tourné mhm. woyu ko quoi Aïda Samb moom moo ci woy waaw moo ko woy studio mais bi may tourné clip bi dafa fekkoon waaw bi may tourné clip bi dafa fekkoon moom mu nekk ci beneen liggéey boo xam ne waaw mënul woon ñëw femme boobu tourné ko mais abu Thioubalo su ma diggante ak moom euh, loolu loolu xale la moom moo ma mag mais bi ñuy dafa yàgg trop jamono yi mom, man may tëgg jamono yi muy tëgg may tëgg jamono yi muy wëy may tëgg xam nga ne loolu yàgg na kon donc moom chaque jour loolu laa koy wax li mu am ci aar bi da ko mérito ndax da ko liggéey jaar na ci na fu ne def comprendre nga mhm. ñu ngi ñu doon muy suma mag di suma xarit donc moom bi muy génne kasetam sax mi ma fekkoon ma nekk ci ay ay ay musiciens doon leen jouer musiciens yu bari jouer naa leen ay di Samba Aline Bay Ndeer Viviane dama doon ànd ak suma nijaay di leen jàppale mais moom bi mu génnee la ma ko waxoon rek laa def dama ne ko bis bu la yàlla dimbalee ba nga génne affaire benn affaire non fu ma mën fekk damay ñëw ndax maa ngi yow ñoo ko sumandoo woon te incha allah ñun ñoo koy yeggali donc mu won ma loo xam ne nag man it ñeme naa ko ba mën a ànd ak moom ndax nit ki tamit gis nañ fi ñuy ànd tey tàqali ko mais moom dafa ma won loo xam ne dama ko ñeme dafa ma respecté te man dama doon nit koo xam ne dama bëgg ko ma jox cër boo ma respecté rek dama lay respecté maag yow ñu ànd liggéey donc su ma digganteeg moom yàlla moo dogal loolu.